kon nga xam ne kon ñoo ko àndandoo. mais am na xam ne bu ko demee rek je crois que ni xaw a niru sabotage. et puis dafay nekk tout ça pour bu ñu leen ci boole woon peut-être amaan na. mais nga xam ne au moins. <laughs> non même bu dul jàll sax. dina dina nekk loo xam ne ci dina sax xaw a yëngal tuuti Amadou Ba. dina serré tuuti. Mm-hmm. mais vraiment avec cette genre ce genre de bi. mënoon mënoon na ñàkk quoi ci li ko indi mooy def lu la neex problème am na problème bi mooy am na benn moment. Euh, peut-être mën na nekk incompréhension comme ni ma ko waxee wala mu tudd ne mu nekk euh, ñàkk ñàkk respect mais lu bon bon loolu am na te loolu am noonu moo jur lii maintenant man li ma ci metti mooy ni ci noonu di profité benn ngi de mi ngi ci bëgg a dugg dugg dugg te xam nga ci <laughs> woo mu dugal ci boppam ba pare ñu laaj loolu la ma ci dugal déet déet ah, te dugal ci ko te kenn dugal ko ci ci woo non déet non moom dafa ne dafa lay poser question nga ni ko li si dina ko seet nga ni ko bala maa ñëw sa question bi ni saraan ci coowul jàmbur ba ne fi indi parce que politique parce que il faut mu am matière boobu pour wan Sénégalais yi ne ñaar ñi nangam ak nangam ah non non non non ñaar ñi ce sont des coalitions exemplaires mm-hmm. coow nag peut-être mënta ñàkk ci ñaari coalition mais pour pour que ça puisse servir de leçon man loolu mooy sama jàngat mm-hmm. pour que ëllëg si biir parce que ñu ngi jëm ci lu am importance ëllëg si biir lu ñu defandi muy ñu nag muy ñoom nag parce que ñun aussi ngor mayu ñu ñu nekk assemblée di yëkkatu lu waxtaanul ak ñoom loolu c'est fausser de débat ñun tamit bu ñu tollee fii dañ leen war woo waxtaan ak ñoom comme nag ñoom ñooy ñi njëkk def faay bi ñi njëkk a def erreur bi ça nous servir de leçon ñu xam exactement naka la ñuy def ak fan la ñuy jaar ba nga xam ne ñu bëgg assemblée nationale dinañ ko mm-hmm. mais en tout cas séngalaton di galopé yow kese nii dugg ci brousse boo xam ne si vraiment euh, ci dugg ci am mati boo xam ne si lépp nga fa bon parfois bu ma tuddoo ubbi seeg ay laaf parce que man beaucoup de tireurs d'élite il faut il faut former benn élite pour mun ko song. d'accord alors Adama dañuy génn ci problème boobu. on va venir un peu au budget solution. mais bu ñu fàttalikoo andi woon ngeen fi budget programme euh, budget programme euh, euh dans la dynamique euh, de renforcer la transparence et cetera génn ngeen ci loolu yéen a ngi actuellement ci budget solution parce que contexte moo ko demandé il y beaucoup de problèmes les Sénégalais attendent beaucoup six mille quatre cent onze milliards euh, pour dérouler pour deux mille vingt Euh, malgré ça des motions de censure bi ñëw contestation bi ñëw détournement yi dénonciation yi cour des comptes rapport bi et cetera lan ngeen di ngànnaayoo pour mën a dérouler en 2023 du ma la jàngal sa métier encore une fois oui. mais on m'a invité dans un plateau par rapport à un thème n'est-ce pas mm-hmm. c'est par rapport à ce thème sur la motion de censure ci la ñuy discuter mm-hmm. du ma def digression ci leneen su ma waree def digression ci leneen damay ndañ may woowaat ma ñëw toog ñu ci lii lañuy ñuy discuter. kon mënoo ci tontu. xam nga tax ma wax la ko. Euh, dafa am loo xamante ni il faut ñu waxtaan ceeg askan bi. oui coowu wax naa leen ko li muy wax naan maa ci dugal sama bopp. budget solution laa leen demandé waaw déglu rek rek. déglu rek budget solution le budget solution a été programmé l'année voté nañ ko ba pare. voté nañ ko ba pare yàgg na les gens en ont débattu ici plusieurs fois l'actualité aujourd'hui mhm. c'est la motion de censure bi nit ñi taxaw ne dañ ko def pour marqué la démocratie j'applaudis mhm. mais su waxee juboon dañ gagné parce que tamit li xam biir assemblée nationale mooy dañ ne opposition dafa yor quatre-vingt-deux députés n'est-ce pas loolu lañ wax nga dem motion de censure tu as eu 55 voix c'est ça l'actualité c'est ça le débat d'aujourd'hui n'est-ce pas def motion de censure présenter ko population bi nga dem nga am 55 voix le débat c'est ça ci loolu lañ ma woo man ma gis ñaari nit ñu toog gis ni ñoo ñoo bokk coalition parce que aussi biir assemblée nationale intercoalition amu fa que doo tontu si question bi. non dëgg lu ma wax dama ne ne tontu question boobu andiwuma fi. d' accord je passe donc aux autres. Passez-leur la parole si vous voulez. Euh, euh, sur le, le budget, euh, budget solution, je pense que c'est des questions qui sont très liées. Euh, je parce ne que suis... les... Non, non, non. non c'est votre position. Non, non, non. bu votre position. démarrer C'est votre position. Xaaral xaaral ñu expliquer bi ñu démarrer ci lundi bi. Euh, déclaration de politique générale bi Amadou Ba parler de budget solution ba développer ko tey bi mu répondre à l'opposition par rapport à la motion de censure il est revenu dessus donc il y a lieu de débattre sur la question au-delà de euh, sur la question de la motion de censure non au-delà de la motion la question du ah, budget la question de la déclaration de de, de, de politique générale les gens en ont débattu ici plusieurs fois ils ont parlé de budget solution. Solution plusieurs fois ici. bul bul détourner suñu débat. déedéet s'il vous plaît. déedéet s'il vous doo ma invité doo ma invité doo ma invité débat déglu dañuy waxtaan dañuy waxtaan. oui euh, Abdou Khare. sama waay nga doo ma invité par par rapport à un thème bien défini. Mm-hmm. nga digressé du ma ko accepté. d'accord d'accord alors je retourne la question à Gallo. Mm-hmm. Euh, le euh, budget solution bi Adama. Euh, je veux dire Adama euh, Amadou Ba en a euh, li ko waral contexte bi les Sénégalais attendent beaucoup question bi ma ko posé laa lay laa lay delloo. Mhm. contestation bi bëri na ci l'opposition parlementaire andi na ay argument pour wax ne te budget solution bi warul mënul am dara lu mu apporter les Sénégalais parce que discours yi ñu fi doon dégg c'est les mêmes. cette fois-ci avec Amadou Ba. Mhm. Est-ce que euh, Taï le pouvoir a les instruments euh, pour pouvoir dérouler ce budget solution-là. non dama koy mettre ci paquet ci paquet slogan yi fi xaw rek l'opposition a raison hein, parce qu'en réalité da nga doon dégg slogan yu bari. Mhm. Euh, accélérer cadence euh, gouvernement de combat je crois que slogan yi rek laay teg ci budget solution. xam nga lu tax parce que du du du tey la mos a voté le budget Macky Sall les gens bi mu fi toog ba léegi ñu ngi koy voté le budget mais li ñuy gars yi di xaar gisuñu ko. c'est pas Amadou Ba kuy ñëw wax loolu mu dugg ci boppu nit ñi l'opposition a raison mais dafa am fu mu faussé note bi te je crois que ni Macky nous a poussé à fausser la note parce qu'en réalité euh, déclaration de politique générale dafa daan jiitu séance plénière sur le sur le vote du budget mm-hmm. bii mm -hmm. regarde ce qui a été les ministres sont passés ñu voté leen seen budget ba pare le premier président soog a ñëw bon le premier ministre soog a ñëw xëy na peut-être dafa def résumé par rapport à ce qui tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale concernant les votes mu ñëw résumé loolu ñëw indil ñu ko mais tout compte fait les députés yuy surveiller bu baax xam lan fa wax ak la nga xam ne que jël nañ engagement yi def par rapport à ce budget pour 2020 li ci des nag mooy si gi xool d'ailleurs sax ci wàllu revenant toujours ci wàllu motion de censure bi bon bu ñu bàyyi woon ba jege deux mille vingt euh, deux mille vingt quatre soo ko yëngal ce pouvoir là je crois que de cause mais le combat a été trop tôt attaqué a trop trop tôt commencé et ça a été mal commencé. Mmh. moi je, pense que euh, quand j'entends bien su ma gisee le président Macky Sall voir le régime actuel. Mmh. Euh, poser ay mesures baisses allant dans le sens de alléger la souffrance des Et me dégue aussi en même temps le Premier ministre dire voir nous parler de, de, de budget solution. Pourquoi Parce que nous avons un contexte baisse Moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes en face d'un régime baisse qui est installé ou ou alors nous en face d'un régime qui est moins de deux ans manque de ces problèmes C'est une question très importante à se poser. Quand Amadou Ba parle de nouveaux contextes, de pousser à ce que nous, un budget de programme, d'un vers un budget solution. Je me c'est parce que le budget programme a échoué. Et ce budget a échoué sur toute la ligne. Mais on n'est pas passé de programme à solution parce qu'il y un nouveau contexte. Il rien de nouveau sur le soleil. Le programme moi, en la moo nekkoon ñaxtu yi la moo nekkoon combat bi du woon éducation du woon santé du woon mbay du woon napp du woon chômage du woon ressources naturelles yi le même problème problèmes à part le Covid qui est passé entre c'est les mêmes problèmes moom la ñuy jooytu fii nii et ces problèmes là datent depuis bien avant l'indépendance jusqu'à maintenant c'est le système qui est foncièrement pourri jusqu'à la moelle donc venir aujourd'hui nous parler de budget solution c'est comme leurrer les Sénégalais sachant qu'il ne reste que moins de deux ans pour que nga débarrasser